nag dañuy delluwaat démb amoon benn demi-finale ca Franceville stade de la Rénovation Cameroun mujj na qualifié final daan kii di Ghana ñaari bal ci dara ñu ci bare bi Cameroun di joué ci poule A bi fii ci Fra euh, Libreville kenn teguloon ci équipe boobu waaye nag moom moo mujjee ñëw final ana naka la gagné gana ñu ñëwaat ci mat jërëjëf mbokk yi xanaa di ñëw ci ak yéen ci li nga xam ne moom mooy stade bu amitié bu Libreville xool stade bi nu mu tëddee ak ñan ñoo koy gérer ak stade bi ndax am na sécurité ak stade bi nu mu mel dañ ciy waxtaan ak seen benn responsable. à l'issue de la CAN 2012 ayant hérité d'infrastructures de pointe son excellence monsieur le président de la République a estimé qu'il devait mettre en place un système pouvant maintenir ces, ces infrastructures en état, d'où la création de la NAGES depuis 2013, qui a pris autorité sur l'ensemble des stades construits afin de pouvoir les maintenir et les exploiter convenablement. njiitu euh, réew mi dafa euh, jël stade yi dénk ko maanaam ay euh, structure pour ñoom ñu toppatoo leen fii nag stade amitié ANAGESC la ko jox en 2013 fii nag stade bu bees la stade bu moderne am nag équipement technologie yoo xam ne ci wàllu jumtukaay vraiment jéggi dayo vidéo bu surveillance de fii am am na système euh, accès boo xam ne sécurité la stade bi nag de l'amitié dinañ fi def ay jongante yu bare mooy match championnat wu Gabon ak match championnat international li ko tax a jóg nag moom mooy pour ñi nga xam ne euh, jàppale ak toppatoo li nga xam ne développé euh, sport wu Gabon stade bi nag dafa am benn pelouse bi pelouse naturelle la am na sax benn maanaam société maintenance boo xam ne mooy toppatoo maanaam gazon bi. stade est bien entendu équipé de pelouse naturelle. nécessite euh, un service de maintenance avec des spécialistes agréés derrière pour pouvoir euh, maintenir la qualité de ces aires de jeu. Donc, euh, euh, c'est un prestataire parce que à chacun son métier. C'est un prestataire, un greenkeeper agréé qui fait l'entretien de ces aires de jeu. mbokk yi ñu ngi di dégtal nag léegi li nga xam ne moom mooy mbokk yi dañoo dem xoolal leen ci yéenekaay yi nga xam ne moo am fii ci Libreville xool ñoom lu ñu wax ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu ñëw ci yéenekaay yi nga xam ne mu gën a màgg fii ci eh, Gabon ci libre Libreville ñu ñëw ci l'union l'union moom eh, mu ñëwaat ci qualification wu Cameroun démb ci kaw eh, Ghana ñii nag ay gaynde lañu ñëwaat ci biir journal bi ñu gis ne que ñoom tamit nee nañu que gaynde yi ñëw nañu ak doole e boo xoolaatee journal bi ñoom nag ñëw nañu ci baat yi nga xam ne kii di tàggat équipe Cameroun bi fësal na ko ci journal bi gént gu neex la kontante la am bu wax beneen entraîneur u Ghana bi moom ci journal bi nee na nag moom mi nag ab naxar la am ñu del ñu des ba léegi ak journal l'Union moom nag euh, suñu euh, naataango yooyu nag nee nañu ghanéen yi ñoom nag maanaam réaliste suñu ak occasion yu bare yi nga xam ne raté nañ ko ci euh, kanamu góolu Cameroun bi ñu jugee ci yéenekaay boobu dem ci li nga xam ne mooy journal Le Matin journal Le Matin nag moom ñëwaat ci qualification Égypte bi nga xam ne taalibe bi nee na nag euh, lii nga xam ne waa Égypte euh, ñoom nag ay sphinx lañu bu ñu demee ba ci biir journal matin nee na euh, fu mu nekk nii ñii di waa Burkina bi ñoom dañoo dal ci ëkk. jëf am mbégte àndoon ak yéen ci journal de la CAN di leen di jox dig daje bu neexee yàlla suba ci waxtu wi Pape Modou Faye Cheikh Tidiane fii ci Libreville pour la radio télévision Walf